jërë ngeen jëf ami internet yu 24 actu ci taamu bi ngeen tàmmu xibaaru vingt 24 actu dañ leen koy defaree rek saa su ne situation bés bi la mu xayma rek ci ay cas di ci junni ak juróom-ñaar téeméeri yoo xamante ne nii amal nañ ko. téeméer ak fanweer ak ñeent ñoo ci daal di ñëw positif maanaam amee jàngoro ji ci biir loolu téeméer ak ñeenti nekk ay cas contact fanweer yi nekk ay cas issus de la transmission communautaire tey nag mën nañoo jàpp ne limu cas communautaire yi dafa yokk lool ci diwaan yi nga xamante ni feeñ na ca bokk na ca Touba am na si juróom-benn Popenguine am ci ñeent parce Parcelles Assainies am ci ñett Guédiawaye am ñett Malika am ñaar Cité Kër Xaadim am benn HLM Grand Yoff am benn Benn Tali am benn. Pikine benn Hann benn Ouakam benn Jëppal benn Kër Mbay Fall benn Rufisque benn Thiès benn Bunkiling benn Mbàkke am ci benn cas mën nañoo jàpp ne rek ne cas grave yi mi ngi toll ci fukk ak juróom bi mbas mi duggee ci réewum Sénégal ak léegi xayma bi mu ngi toll si ñeenti junni ak téeméer ak juróom fukk moom la ñu déclaré positif ci réew mi ci biir loolu ñaari junni yi ak ñeenti téeméer yeeg juróom ñaar fukk yeeg juróom benn ñoo ci daal di wér ñeent fukk ak juróom daal ci génn àdduna li ñuy saytu ci lali hôpital ñu ngi toll si junni ak juróom-ñetti téeméer ak fanweer rek ñett ministre bi rek di gën ñaax askan bi ñu gën a respecté li nga xamante ni ko docteur ñu ngi leen koy digal ngir jàngoro ji mën a dakk ci réewum Sénégal ci nu mu gën a gaawee ginnaaw oyofal gi ñu def yenn mesures waaye am na yeneen secteur yoo xamante ni bokkuñu ci buñ sukkandikoo rek ci ki nga xamante ni euh, moo di Aly Ngouille Ndiaye nekk jëwriñ gi nga xamante ne ni moom lañ dénk lépp lu jëm ci intérieur u Sénégal bokk na si baar yi activité sportive yi nga xamante ni ci plage lañ ko daan amal ak boîte de nuit yi ndax nee na dafay yenn yoo xamante ne nii du neex a jëfee li nga xamante ne nii moo di mesure barrière yi nga xamante ne nii euh, kër docteur ñu ngi koy digal askan bi ba loolu moo tax rek euh, yenn secteur yooyu le bokkuñu ci li nga xamante ne nii moo di oyofal euh, gi ñu oyofal mbir mi ministre Oumar Youm nekk jëwriñ ji nga xamante ne nii moom lañ dénk lépp lu jëm ci dem dikk bi démb gis ngeen jàkkaarloo bi nga xamante ni doon na ko jàkkaarloo ak askan bi ba tax sax mu ne woon dinañ fixé ay heure yoo xamante ne nii ci la ñuy tëj li nga xamante ne nii moo di gaar yi nee na vingt bu jotee benn gaar dootul tijjeeti maanaam huit ci guddi bu jotee rek gaar yëpp danañ leen daal di tëj daal di nettoyer li nga xamante ni euh, moo di oto yi ginnaaw bi transport routier bi jàllee transport aérien yi moo si daal di toftalu buñ sukkandikoo rek euh, ci laas ministre du tourisme et du transport aérien di Alioune Sarr wax na vol intérieur yi dinañ tàmbali waat bu la 15 jotee buñ sukkandikoo rek euh, ci ëttu yëglekaay boobule di Seneweb kon le 15 juin nag dinañ mën a tàmbali waat li nga xamante ne nii moo di vol intérieur yi ci jafe-jafe yi nga xamante ni nemmeeku woon nañ ko fan yi ñu génn mu di ay manifestation yu tàng lool bi nga diwaanu Kaolack ba benn auto police rek daloon si benn xale tey jii si suba maamam bu jigéen daal dinay xamle ni Alioune Bey Diop moomu mi ngi am tan bu baax a baax xale boobu bokkoon si ñu doon manifesté wu te ndar gu daaw di fàttali rek xale bi ay atam mi ngi toll si ñaar fukki at ak juróom dëkk abattoir de na bokk ci commune euh, bu Kaolack kon jamono ji rek maama bu jigéen nee na xale bi mi ngi am tan bu baax a baax daal dinay génn fële ca urgence ba nga xamante ne nii euh, fa la nekkoon ci manifestation yi la ñuy dese ni ndax gis nañ ci nga xamante ni moo di euh, groupe euh, des médias dañu leen defoon benn mise en demeure di conseil national de régulation de l'audiovisuel di CNRA maanaam euh, jëwriñ ji nga xamante ni moom lañ dénk lépp lu jëm ci média fii ci réew mu Sénégal wax na Sen TV ne ñoo invité woon sénégalais yi di ñu gën a def ay manifestation rédaction naka bu groupe Bougane Gueye Dany daal nañuy mer ba futtu bay wax naan seen TV day déraper walla ndax bi couvre bi tàmbalee ba léegi direct yi ñu ngi ko doon amal ba fàttali nañ sax jamonoy ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin 2011 bee ñu génn amoon coupure courant bu metti woon lool ci Dakar ak l'étendue du territoire bis boobu média sénégalais yi muy rajo wala sax muy télévision doon def ay direct di wane lépp li si xewoon nee na booba fan na Sénéra nekkoon ki xam la yooyu la kàddu moo di Bougane Gueye Dany ba sax nee na xanaa Sénéra rek liñ bëggoon mooy ñu defa page spéciale jëme ko si ki nga xamante ni nii moo faata woon États-Unis di ki nga xamante ni moo di George Floyd boobu la di euh, Seneweb moo génne yooyu les xibaar Cheikhou Kouyaté di capitaine Sénégal wax na ni muy dundee ak ñaari jabaram yi dañoo créer li nga xamante ni moo di tim aaw ak ñaareel ngir jéem a déstabiliser li nga xamante ni moo di ménage bu nekkee ak aaw bi ñaareel bi da ko yónnee ay message ngir jéem koo fiirloo ba tax moom Cheikhou koyaate mu xam ne ne lii moo tax Gana ak ñeneen ñi takk ay tubaab buñ sukkandikoo rek ci ëttu yëglekaay boobule euh, di Dakar Buzz ci benn direct boo xamante ne ni moom Cheikhou Kouyaté dool na ko amal ci la génnee yooyu le kàddu ministre de l'eau et de l'assainissement di Serigne Mbaye Thiam daal dina ñàkk waajuram bu jigéen amoon lu toll si juróom-ñeent fukki at ak benn yaayam jii di ay Aïssatou Thiam te gaañu dinañ ko denc Medina Baye ci nu mu gën a gaawee ndax dafay bañ li nga xamante ni moo di rassemblement ndax jamono ji Covid 19 bi daf koy tere ñu daal di koy jeexale ki fi nekkoon ancien présentateur télévision. et promoteur du concours de beauté Miss Sénégal daal dinay génn àddina mu ngi tuddoon Moïse Ambroise Gomis dinañ ko denc samedi ca dëkkam bee di Ndar buñ sukkandikoo rek ci jeglekaay boobu boobule di Sénégal set groupe 24 actu active yëpp ñu ngi daal di jaale ki nga xamante ne ni moo di Serigne Mbaye Thiam ak waa kër Moïse Ambroise Gomis googule di leen ñaanal rek yàlla suñu borom xaare leen àjjana ya gën a kawe lii rek moo fi ruusandi woon ci ay xibaar dig daje ba ëllëg ak